xëccu soow kenn ku ci ne naan maay defal Touba jot naa nag ñun ñi nga xam ne ñoo taxaw ba mën a am maturité foog naa lu ñu mën a def rek ñun ñoo war a def loola. Eh, yaakaar naa nag nekk ci beneen parti bi ñun ñu nekk suñu parti yàlla dogal ñu lu ñun am majorité kam keneen ku ñëw naan maa defal Touba maa defal Touba yaakaar naa bari wax la waaye def gi moom ñun ñi àndoon te nga xam ni yàlla may nañ jàmm ñuy góorgóorlu ba yàlla may ñu majorité moo xam mat na nañ ko bëgg moo xam ko mais lu mën a xew rek ñun ñi wate woon te nga xam ne yàlla ñun la may maturité bi yaakaar naa lu suy liggéeyee rek ñun lañ ko war a sant gërëm ñu ko kon maa ngi sant képp ku nga xam ne rek wate woon nga ngir suñu parti yàlla may noo lim ñu may. ci atum 2022 bi ba tey bari woon na ay tolof tolof si dunduñu doomu aadama yi si dëkk bi agression bi accident yi euh, coow li nga xam ne mooy dox si diggante way politique yi euh, yooyu noonu yëpp tey ñu génn si atum 2022 di dugg si 2023 Euh, population bi ak lan ngay yokkaat loo xam ne buñ ko doon doxalee ci 2023 bi jafe-jafe yi nga xam ne am nañu ko duñ ko am. waaw comme man li nga xam ne rek man mooy nekk sama xalaat rek mooy toujours ñu nekk ci fexe nekk ci aw jur comme ni ko sëñ bi bëggee rek euh, xat-xat yi bari na xalaat yi bari na waaye bu fekkee dañoo nekk rek nekk fas yéene ànd akuk dal akuk jub. te lu waaye yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom rek yaakaar naa jàmm rek la am di ñaan nag comme 2023 su naree yées mu dàq 2022 loolu daal la ñuy ñaanal dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm yàlla na yàlla nañ ci may jàmm wér ak wérle képp ku nga xam ne yéene nga jàmm di yàlla na ko yàlla may loolu daal la am luñ leen di ñaanal di ko ñaanal ndaw ñi di ko ñaanal jigéen ñi di ko ñaanal mag ñi di ko ñaanal ñëpp waaw loolu benn bref la woon rek ci atum 2022 ñu dugg nañ ci yi nga xam ne génn nañ ko Touba tànn ay député ñu teewal leen fi ci ensemble ñu am 14e euh, législative bu bees am ay yeneen xar kanam yu bees yi nekk ci ensemble gi depuis ba ñu tàmbalee liggéey bi ba tey gis ngeen li fay am coow bàyyil saagante ba ay dóorante am am fa boo xoolee loolu noonu du jur gàcce ci yow wala da nga jàpp ni 14e législative bi moo gën sax bi nga xam ne moom la ñu génn. mooy comme xam kenn ku ne ka ngay roy rek boo saaganee yow moom ngay roy nit kenn ku ne ca ka nga nekk parce que koñ comme li ma la wax rek maa ngi dégg ñu koy xëccoo waa Touba kenn ku ne naa maa defal mais mooy comme li ma la wax rek ñun ñi nga xam ne noo nekk suñu parti pouvoir ba yàlla def ñu majorité danga naa lu ci am rek kuy sant ñun nga ko war a sant mooy li ma la wax ne la kenn ku ci ne rek la nga jàng ca ka ngay jàng rek ngay wax te dégg nañ fi ñooñ wax dëgg yàlla tàmmu leen ah, xamuñu leen ci ay ay saagante te loolu lañ mel ne moom la ñuy gis ñu di ko def moo ma japp ne la kenn ku ne ka ngay roy rek boo sàgganee mom ngay roy yalla na yalla musal nu yalla dimbali ñu ci bu ñuy roy nak ñu roy ku baax lu baax. yéen Benno Bokk Yaakaar seen taxaway ci ensemble bi euh, rafet na ko ko waaw moy rafet na moy ñun goru nañ ba man am majorité lepp lu fi jaar lu ne dinañ fexé tam nu fexé bam jall rek. lekkaar naa lo rek moy li am solo lepp luñ sumbu dal dinañ fasiyene mu yegg ci jamm képp ku ko bëgg kal nak ñun ak yow la dañ defante mom ma taxawaay opposition bi nag noo ko gisee ñoom. waaw mooy comme rek yaakaar naa ñi ñi taxoon opposition bee am li ñu am ñooy rëccu waaye ñun gisuñu gisaguñ ñun lu ñuy mën a rëccu parce que gis nga ni taxawaay bi ñu taxaweegun rafetul du dox du doxee nu responsable daal ndax li ñu doon wax nit ñeeg li ñu def dara bokku ci. da nga jàpp ne daal ñoom seen taxawaay bi ñu am ni euh, askan wi rafetluñ ko. waaw mooy ah a ma wax sax askan wi rafetluñ ko waaye man ci sama bopp comme ni ma gis ñu di ko doxee man gënalu ma ci doxin yaakaar naa nit moom comme ni may wax rek lu muy dox ne na ko dox ci lu nga xam ne ko ko seen da nga ko ca naw mais dox doxin wu nga xam ne feneen ba bitim réew fu mu buñ la ca gisee duñ la ca naw man damay ñaawlu loolu. Hmm, ba tey rek dañuy des ci euh, ci actualité bi gouvernement gouvernement gouvernement bu bees président taxawal ko ci atum 2022 fal ki nga xam ne mooy Amadou Ba mu nekk premier ministre naka nga gisee taxawaayu gouvernement bi ci six nga xam ne am nañu ko ginnaaw bi ñu ko taxawalee ba tey. waaw gouvernement bi comme li ma ci waxoon rek bañ koy dogo fal yaakaar ji ma ci amoon askan wi yëpp am ko ci rek yooyu laa ci dolli continuer di ko ci am ba tey ndax moom lu mën di xew itam ñi ngi nit ñi ñi ngi am yaakaar ci Amadou Ba yaakaar jooju nag damay wax ni yàlla bu mu tas ndax jot nañu ni mu tàmbalee di ko doxal su ci continuer it bëgg rek danañ ko am liñ ko bëggee. pourtant ñu bëri nee nañ seen doxin dafa yeex waaw xam nga doxin wu yeex moo gën wu bar te jaarul yoon na yeex te mu teg ko ci yoon rek yaakaar naa loolu ku ci ne xam na ko ci amadu mën naa yeex ndax mu mosuñu koo gis ci rabax rabax waaye lu mas luñ mas a gis mu dox ko rek ba mu sottee nit ñi naw nañ ko ci kon nag lañ ko doon nawee ba tey daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla suturaal mu continuer ci loolu ñu gën ko ci naw Baye Alla euh, président ñu tabb ko en conseil collectivité territoriale ban la tabbee ba tey liggéey bi tàmbali ba ko wala fan la toolu jamono ji ba tey nag tàmbalee gu ko maa ngi am yéene bu ma ko tàmbalee président dana xam ni lim def amu ci rë euh, lu mu ciy rëcc bi mu ma ko tàmbalee guddi itam maa ngi fas yéene rek di ko gàttandu lu ma mën ci liggéeyal ko ci dëkk bi rek dinaa ko def sama kem talaay kàttan. ak fan la taxawaay bi toolu jamono ji tekkaaral ji jamono ji Baye Alla. lan la japp ni euh, tay bu ko don def euh, Benno Bokk Yaakaar dina am candidat muy 3e mandat bu président Macky Sall wala soit kenen ko xamne tek teg nañ ko fi. waaw comme nun rek ba la ni mu def rek non la don def ñun dañ la wax ne la duñu am suñ mbeur suñ entraîneur di ko dañ koy deglu rek mu xalaat xalaatal bopam yaakaar duñu du jëm ci fenn dal di teg lu nga xamni ni lu ñuy xagn la soit mom mu dem. ñu ànd ak moom soit mu tegal ñu kenn ñu ànd ak moom lu mu ci def rek ñun pare nañ pour ànd ak benn Bokk Yaakaar taxawaay bi nag yàgg na comme li nga wax waaye mbir moom boo ko dee waaj da nga koy xool xoolaat ko ñu ngi ci waajum jaaykat sos nañ ko yéene jaay bu ñu jaay rek danañ xam luñ man ak luñ mënul incha allah. bu yàgg président def na benn ay électrique ay kàddu bi mu demee Tamba xaw ma Matam wax ne ñoom élection législative yi xëccoowuñu ko ak élection maire yi mais président lañuy lañuy xëccoo 2024 ñu bëri njort ne moom laaj li nga xam ne mooy troisième mandat ndax loolu jàpp jàpp nga ne lu la ci réew mi. lu gën la parce que du mu niil xanaa comme koy lim ne nañ ko waajal nuñ ko waajal rek baax na buñ ko waajalee koy mu wax rek buñ waajalee président boolee kon waajal baax na mais nañ waaj rek nañ fexe ba buñ ci yeggee ñi fi nekk ñun ñu ëpp leen doole def li ñu war a def. moom mu woote ñetteelu mandat ndax baax na lu bon ci réew mi amu parce que président gisagoo bi mu diggee ci réew mi nga gis mu def dara lu bon sànce lañ fi gis yu bari département mënu koo waat li mu war a def lépp mu ngi koy def kon yaakaar naa euh, président moom xanaa ay li ñuy wax ay deuxième mandat ak yooyu deuxième mandat euh, coow loolu moo ci jub mais président ku ko gën ci réew mi du fi mën a am ñim fi ñim ñim fekk ñu jàll moo leen man yaakaar naa ñi dëgg ma la war a ñëw itam moo leen man parce que nit ku la taxaw naa la euh, su ma egsee da nga am 10 ans 10 ans ñun xamuñu fu ñuy fekk da kuy wax kay da ngaa wax su ma egsee li may def dama koy daa def mais danaa danaa toog diis ans feeg 10 ans bu leen ci xalaatoo neex ñun yàlla ñaanuñu yàlla loolu te ñaan yàlla réew mi continuer di neex koo ko mën a yor nga yor ko rek ci neex. tolluwaayu parti bi si dëkk bi eh, ñi jub jub boobu tey tekkaaral gi kenn déggu bi ngeen génnee élection yi daal daa mën a kenn ku nekk moom daa nekk saw yoon rek di lijjanti loolu moom man su ma doon wax dinaa ci wax wax ak président li mu war a def moom mooy fexe ba boole ñëpp ñu nekk benn saawa parce que sàmm ay nit ñu bari gënul gënul ci moom gënul ci ñun man parti bi bu ma doon wax ci dëkk bi damay fexe ba boole ñëpp ñu bokk benn saawa moo gën a neex a sàmm di sàmm ñi ko fi ñëw di ko fi nekkal bëgg a sàmm ñi fi nekkal parti bi ku fi ñëw daal bëgg a jàppale président da nga war a xool li ñu transé ci dëkk bi ñu seet ku nga xam ni ñu yaakaar ni bëgg na parti bi te bëgg a liggéeyal parti bi ñu jiital ko mu nekk fi mais kee aw fee kee aw fee ku ne naan président laay jàppale feeg jëlewu ko fi nim ko bëggee dëgg foogu ma ni dina ko ni mën a amee. waaw moo mooy loolu comme fii rek ma defaale ci sama appel wax ko ci laa ko waxee bëgg tamit président moom mu xoolal ko boppam xool dëkk bi ñi fi nekk ñëpp mu fexe leen a boole mais amaa fu na nit jógee fa dikk ni man damaa bëgg a jàppale si président ci Touba nun waa Touba ñi fi nekk am na lu ñu man xamante ne noo waa Touba ku fi ñëw te bëgg a ànd ak ñun da ngaa war a ñëw ànd ak ñun ñu ànd liggéey ci Touba pour mën a gañe Touba. ci loolu yéen seen yeneen allié wala boog ñeneen ñi nga xam ne mu bokk bokk ngeen parti bi dëkk nañ biir Touba wax ni dañuy jàppale président si dëkk bi si di Touba mën nañ si lim ministre de l'intérieur ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne dëkkuñu fi sax mais dañ fi am ay nit ñoo xam ne dañuy dañuy diranteel ba ak yéen ñi nga xam ne yéen a fi ndax loolu bokk na si liy defar moom loolu laa la wax dama leen ne président ji moo war a xoolal boppam sàmmal ko ku fi ñëw wane ni da ngay jàppale si président mu ñëw am ñum la yebal am ñum la booleel mu fexe ba dajale ñëpp ci benn saawo yaakaar naa sàmmandoo nit ñi benn yoon moo gën a yomb ci moom kenn ku ne taxaw fa nga taxaw naan président laay jàppale suñu yëkkatee moyen nga ne man saawal kenn ku ne laaj wàllam bu ñu eggee ba ca cappaandaw ba ku ci gisu sa bopp rek da ngay dem toog ñu nekk nag président te bëgg président rek ñooy continuer def la war kon il faut que rek mu boole ko benn saawo parce que yéenee sàmm parce que comme noonu nga ko waxee rek yi nu génn lu mel noonu rek moom nu ci dal kenn ku ne naan diw jàppale diw laay jàppale boo demee ba ca cappaandaw ba gisoo li nga war a gis da ngay toog dem jàpp sa bopp yaakaar naa législative na ci lu bari ndax avancé wu ñu dañoo arrière te lu mel noonu rek moo ko indi ay gan ñu ñëw xamuñu fu ñuy teg seen tànk jël seen i ku leen neex ñu jox ko ñu ànd ak APR ñu àndut ak euh, moo indi lu bari. kon yaakaar naa président moo waroon dajalewaat mbooloo mi ak ñi ko bëgg a liggéey waxtaan ak ñoom wax leen li mu bëgg ku fi ñëw nu ànd nun waa Touba nekk benn fas yéene ànd liggéey jàpp li ñuy def bu ñu ko defee daañu mën a am li ñu bëgg. ndax yéen responsable yi nag liggéey boobu noonu yéen loolu noonu taxu defoo leen ko ndax euh, gis nañ ni chaque élection bu ñëwee da ngeen koy perte ñeneen bu ñu jugee si àll bi ñëw ñëw di leen jàppale nga yaakaar ne loolu loolu nekkul doole. loolu du doole loolu laa la wax xam nga ci wax bi mooy waxaat bi rek moom la ñuy wër-wër ñeneen ñi jóge ci àll bi lu ñu yàqule ñun ñoom ñoo ñoo ñu ko yàqal pour man li ma gis laa wax man gis naa ni ku fi ñëw toujours dañuy am ay gan yooyu dañuy dikk ni ñooy defal président financement ñun ay magi jëmm lañ ay gor lañ li ñu nekk suñu bëgg-bëgg la bëgg-bëgg boobu ñu am nag il faut président fexe ñu ci kondir ñu xam ni dañ koo bëgg a liggéeyal si niñ koy liggéeyal mooy ñu jox nu cër bi ñu war a jox respecté ñu ñu xool kan lañ bëgg moo xam ba yàlla lay doon moo xam ko muy doon mais nit jóge ci àll ba président leen jox lii rek loolu doxaluti élection élection li koy doxal li président indi na ko indi teg ko ci géew bi ñëpp gisandoo ko ñu ne xam ne temps bi moo jógee ca kaw li ñu defal ñëpp raison yëpp ñu defal ko waa Touba lii ngeen am na ko ñëpp teewe na ko ñëpp fekkee ñu gën a wàññi alliés yi daal gox bu ne bu fekkee son la ñu tënk ko ci son yi ña fa nekk nekk socialiste ñu dem ca seen son ànd ak ña fa nekk bu dee sama soon noonu feneen noonu mais xajaloo bi bari bi nañ sedd waa social nañ sedd waa per waa réew mi kenn ku ne ñu ne nañ la jox kuñ joxul rek nga gis sa buñ demee ba ci cappaanda bi ñu naan diw di daa bëgg a fexe ba jiite gañe loolu fekk mooy ñu ko nañu boole ñëpp man loolu laa wax kenn jiite ko ñu ci di ci ñoom te luy ñëw it nañ fexe ba paysan ñëpp xamandoo ko waaye diw indi na yaakaar naa diw yor mooy ni kenn ku ci ne mu seet la la neex mu di la ko jox loolu du ko doxal soit mu seet responsable yi nga xam ne wóor na ko nit ñi yéene nañ koo liggéey te yéene nañoo gañe am nañ jom muy wax ak ñoom. ndax président bi mujjul mujjul sonn si si ay at nii muy perte ay élection mujjul ay loxoom ni da leen di seetaan yéen lu leen neex def leen. waaw seetaan gi loolu waxin la rek mais population bu toll ni waa Touba ku bëgg a dem cim réew bëgg koo gañe do len mana a setan len man na ci jekk me du ci mujj man lima ma bëgg mu def ko na ko def rek dox jonna nañu may ay loxo ñu dox dox gi moy liñu wara war def moy nañ fexé ba am ay carte d'identité yu doy seen ñi nga xamni war nañu bindu ñu bind len suñu suñu électoral tamit mu xolaat ko parce que da nga gis ku dëkk gox bi dem ba wote ji daanaka mbacké fenen non il faut ko mu xolaat fichier bi def ci lim ci wara def ñi nga xamni dañuy bindu di ñu jàppale te bëriwuñ ay carte d'identité mu ñëw jàppale ñu ñu fexe bañ am carte d'identité yaakaar naa moo gën toog rek di xaar ba agsi ca yëf ya fekk jékkoo mbir mel mu ne daal des koy teel a waajal ba waaj ba waaj jotee. Baye Alla moom fan lañ ko si mën a xaar si élection yi wàccaay bi moom au lieu que muy toog di xaar moom nan lay def ay militant ak ñi nga xam ne amaguñu seen ay carte. man samay militant maa ngi ci comme ni ma la wax rek maa ngi wër partenaire. maa ngi wax ak ñi ma war a waxal pour def sama kayiti juddu ak samay carte d'identité parce que bëgg naa bu cee yeggaatee rek li ma soxla ma amee ko ni ma ko bëgg loolu nag dama ciy tàllal loxo képp ku ma xam ne yore nga lu mel noonu ba nga yor say moyen ñëw man ma caa dimbali ma liggéey li ma war a liggéey parce que li ma wax rek doo toog rek ba élection ñëw fekk ñi nga war a waajal waajal leen foog nga waajaat xoolaat sa sa fiise neex na la walla neexu la nga fexe koo def noonu la neexee man daal loolu ci laay tàllal loxo président ak képp ku nga xam ne am nga yéene jàppale ko. Hmm. ba si dëkk bi moom moom la ñuy des rek jublu ci bu yàggul maire bi def na li nga xam ne mooy orientation budgétaire wate nañu budget bi mu yokkaat lu toll ci 6 milliards presque naka nga gisee liggéey boobu noonu ak commune bi si dëkk bi. Euh, tolluwaayu commune yi ci dëkk bi toujours bëgguma ci di wax ndax ginnaaw dañuy def réunion suñ ko defee ba noppit ma jógee fa di di siiwalaat lañ fa def xam naa du ma gënal mais nag bëggoon naa tamit euh, moom mair bi mu gën a tàllal loxoom askan bi wala ñi nga xam ne ànd naa ak ñoom ñu nekk ay conseil parce que tamit lu ñu mën a wax conseil la ñuy wax wala maire bi yaakaar naa maire bi nag moo war a gën a tàllal loxoom gën a laaj xalaatu conseil mais ni ma ko gisee moom daanaka ci xalaatam lay dox wala ñi muy tëjool di waxtaan ak ñoom fokk naa ni nag fokk rek mu gën a ubbiku di wax ñëpp. waaw bu ñu demee conseil di war a def lañu def kenn ku ne ñu taxaw laaj la lay sa xalaat nga wax ko bu dee mu xool la ci la ca gën a jub la ca gën mu def ko waaw yaakaar naa li ñuy génne di ko liggéey suñ ci liggéeyee warees naa mën a gis buntu lii maire bee ko fi def. xalifa général bi amul bëpp dem def na déclaration jëlaat dëkk bi tegaat ko si loxoy euh, takk deer yi plus ak gendarmerie mu mën ne liggéey bi bi Safinatul aman doon def ak Xudaamul Xadim lépp dañu doxalin woow doxalin man dama ciy kontaan ba sëñ Mountakha moom nit la ku nga xam ni yàlla ci boppam dimbali na ko nekk na nit ku ma ndax lu ko jiitu gis nga ñu fay dem ñëpp ñëpp kenn ku ci ne di wane ni damaa bëgg a yor dëkk bi di wane ni euh, sécurité bi kenn ku ci ne daal da ci wane sa ngóoro mais man li ma waxoon rek am na lu ma ci junjoon jot naa ne police ak gendarmerie suñu njariñ la wax wax naa ko li ma jort dëgg te jort ko mooy civil warul mën a yor. moroom ja comme comme Modou Lo moom moom la fi sëriñ bi tegoon sëñ saaliw ñeneen ñi fi ñëw teg ko fi buñ demee ba sëñ bi téyeloo ko loxoom yaakaar naa ku sëñ bi reconnaître warul mën a dox waneen doxin kon li may def daal di rafetlu ni ko sëñ bi defee ñëpp xam ni mooy sëñ Tuubaa te yaakaar naa li mu bëgg lu waa dëkk bi eh, gën a taaroo rek noonu la bëgg kon nañ ñaan yàlla daal ñun ñëpp ñu wéy ci ndigal te def ko ni nga xam ni moom la defoon ay baayam ak i magam buñ ko defee rek yaakaar naa lépp dana nekk ngëneel ci ñun. taxawaayu état ci sécurité bi am ci dëkk bi wala wala insécurité bi gis na ni bu yàggul xalifa général nee président dimbali na ko ci bu loo ay bu bu baax a baax a baax naka nga gisee taxawaay boobu. taxawaay boobu euh, maanaam comme li may wax rek man dama nekk nit ku nga xam ne toujours dama bëgg di déglu sama kilifa comme man am naa kilifa yàlla def na ko. sëñ Muntaxa sama kilifa la ndax mooy kilifa ak sama kilifa di dégluy waxam rek di fexe ay junjam bëgg di déglu ak bëggam bëgg gi ni ma koy dégloo mooy di xalaat junjam ndax damay mas di wax ak sama kilifa dinaa ko wax toujours sax nag dama mos dem di yóbbu sama addiya bi ma demee yóbbu lu nga xam ne yaakaar naa ni bëgg na ko bi ma ko ko yeetee dana ma lii lab bi war di def fexe bay dàkk ndigal man ci ñooñu rek laa bëgg bëgg naa daal lu sëñ bi yëkkati na fekk ma nekk ca loola ci ciw fexe ak bëggam lu mu bëgg rek te di ko junj ma di ko def ak lu mu mën di doon rek. Euh, laaj bi laaj bi mujj bi rek actualité la Pape Alé Niang nekkoon journaliste ñu jàpp ko jamono ji tëj ko muy dund ay jafe-jafe yu ñu bari di koy sàkkul ndimbal pour président mën a ñu mën a tegg loxoom mën koo libéré ban xalaat nga am si loolu ak lan ngay sàkku ci loolu. xalaat bi ma ci am mooy si doon nañ ko wax lu bari woon ci réew mi la itam mais dafa mel nag day bëgg a wàññi dama ma naa gis ni. journaliste yi comme ni ma ko gisee léegi bari na par parlo ñun xam nga nun ak yéen ñu seq terrain bi mais kenn ku ci ne daanaka fa nga far fi nii ñun xam nañ ko muy yow muy man muy Babacar muy keneen kenn ku ci ne am nga foo gën a féete fa nga gën a féete nag boo fa dëggalee te lañ la ngay wax ci la gën di féete te am na loolu xëy na buur da koy tere nga bëgg a dëkk ci di ko def yaakaar naa ñu jëkk laa yóbbu ñu baal la nga dellu dellu si dellu def la nga doon def waññiku dellu di ñaan yaakaar naa def liñ lay sant dal nga xamni ni comme ni yenen journaliste yi def ma ngi deglu journaliste yeb même ñi di journaliste sax am na ñooñ wax nañ ni pap kale limi def daf ko wara wañi ban weesu jëm jamono man nak julit bu ne li lay yene yalla la yalla may jam yalla nako yalla may président bu ko mané bal mu bal ko te bu ko balé mu bañ a ci lam doon def rek ñu bari leen nak seen góor gi japp bi da bari lool ku sëqal rek ñu jël la yóbbu la si bi kasso bi xam nga waxin la rek waaye jàrt naa ne li li nga fi dégg ci ci ci ci démocrate bi fi Macky Sall nekkee ak léegi bari na ñu fi neen ñu fi nekkoon du dunuñu ko woon nangu dafa mel ni nag Sénégal ci boppam dañuy dégg démocrate te xamuñu ko du jaageenu rek yor sa micro di wax nu mu la neexee wala ngay saaga di ko def koo ko def loolu yaakaar naa du démocrate démocrate mooy xool say droit xam ne lii war nga koo def lii boo ko defee dara jàmm ci jëkk jàmm ciy mujj te doo ci tuuse kenn waaye biir mu nga xam ne dañ la ne démocrate nga fekk ku nga xam ni xëy na da nga koo bëgg a yàqal rek tax nga am noo taxawee di ko waxee loolu du démocrate démocrate moom mooy xam say droit ci yow ci sa bopp nga yor ko di ko doxe fexe ba lii sa lii lii sa bëgg-bëgg ak li nga xam ne moo mooy mooy sa mooy sa droit daal nga fexe ko garde ku la bëgg a def lu dul noonu nga taxaw wax ko ni ko man lii sama droit la loolu mooy démocrate waaye yor saw làmmiñ rek nu mu la neex rek nga waxee ko ne ku mu la neex nga tooñ jot naa ni eh, nekk ci sa parti parti kenn ku ci ne fa nga bokk daanaka fi nit xam nañ ko wax ji mooy bari waaye ñun daal xamante nañ ci suñ biir euh, kàddu gi dafa mel na kàddu gi mujj gi ak jàpp nga ni loolu laaj laaj la ko loolu sonjiwaat jaajiwaat ñi nga xam ne ñoom nga seqal langue politique bi gi mooy comme li ma rek président lañ ciy tàllal loxo mu xam ni dëkk bi Touba ab dëkk la ay électeurs ñoo fi nekk mais dafa laaj organiser dafa laaj tamit ñu am leader bu nga xam ni bu ñu amee luñ soxla mën a dem jawal ci moom laaj ko mais fi mu ne nii yëf yi pàccaxoo na te mënoo xam kan ngay jawal wax ko say bëgg-bëgg mooy comme li ma la wax nii rek ñun ñu ngi ci tàllal loxo yaakaar naa dëkk bi aajee na recensé aajee na ñi amul dentité nga fexe ñu am ko ñi nga xam ne seen dañoo féete te bëgg bokk bokk fu ñuy watee nga jàppale leen ci kenn ku ci ne bu wata jotee coono ba dana wàññiku ci ay wuti wata jël transport loolu daal lañ koy gën a tàllal loxo mbir nag doo toog ba ni ne këcc rek ni jonn nga ne naa dem Touba nañ ma dimbali ci Touba ci njàlbeen gi nii la laaj ñu jàpp ci mën a bindu mën a am carte d'identité bu wata jotee ñu mën a def liñ bëgg di ñaanal tamit ñëpp at mu bees mi di leen ko ñaanal di ko ñaanal waa di ko ñaanal waa àdduna ñaanal ko population bi di ko ñaanal suñ gouvernement di ko ñaanal suñ président di ko ñaanal ñëpp yal na leen yàlla may jàmm réew mu na naataa nga ji gën a dolliku mbaa naataange ji sax sëñu blaa daf daan wax ni naataange moom yàlla yàlla daal may xewal ku sax dàkk ci barke yonente bi salaa salaam barke seexul xadim yaa seexul xadim jërë ngeen jëf